Yoona saar ginnaaw loolu ku ci nekk dellu sa kër yéesu moom dem ca tundu oliw ya ca ëllëg sa ca fajar mu dellu ca kër yàlla ga mbooloo ma fa teewoon wër ko mu toog tàmbali di leen jàngal xutbakat ya ak farisiyen yi indi jenn jigéen ju ñu bettoon muy njaaloo ñu taxawal ko ca diggu mbooloo ma noonu ñu ne yéesu kilifa gi jigéen jii de dañu ko bett muy njaaloo ci ndigali yàlla yi jigéen ju njaaloo musaa dafa santaane ñu sànni ko ay xeer ba mu dee yow nag lu ci seen xalaat loolu nag dañu ko doon wax ngir seetlu ko ndaxte bëggoon nañoo tiiñal yéesu yéesu sëgg di bind ak baaraamam ci suuf bi laaj ya bare mu siggi ne leen ku musa la def bàkkaar ci yéen na ko jëkk a sànni xeer noonu musa gaat dellu di bind ci suuf bi ñu déggee loolu ñuy rocceeku kenn kenn mag ñi jiitu yéesu rekk des fa jigéen ja taxaw ca kanamam mu daldi siggi ne ko jigéen ji ana ñi la doon jiiñ njaaloo ndax kenn tegul la tooñ mu ne ko kenn sang bi yéesu ne ko manit ci sama wàll duma la daan demal waaye bul defati bàkkaar yeesu jubluwaat ca mbooloo ma ne leen man maay leeru àdduna si ku ma topp doo dox ci lëndëm waaye dinga am leeru dund pharisien ya ne ko yow yaay seedeel sa bopp kon li ngay wax du dëgg yeesu tontu leen maa ngi seedeel sama bopp teewul li may wax di dëgg ndaxte xam naa fa ma bàyyi koo xam fa ma jëm waaye yéen xamuleen fa ma bàyyi koo ak fa ma jëm ci gis-gisu àddina ngeen di àtte man duma àtte kenn teewul nag su ma demee bay àtte bu jub lay doon ndaxte du man rekk ay àtte waaye baay bi ma yónni daf ciy ànd ak man seen yoon dafa wax ne seedes ñaari nit a gën a wóor man maa ngi seedal sama bopp te baay bi ma yónni mi ngi may seedal itam ñu laaj ko ne kuy sa baay yeesu tontu ne xamuleen ma xamuleen sama baay bu ngeen ma xamoon xam ko bi muy wax loolu yeesu nga doon jàngale ca kër yàlla ga ci wetu fa ñu daan denc asaka ya kenn mënu ko woon a jàpp ndaxte waxtoom jotagul yeesu dellu ne leen maa ngi dem dingeen ma seet waaye seeni bàkkaar ngeen di deyaale fa jëm du ngeen fa mën a dem yawut yay waxante naan nee na kat fa mu jëm duñu fa mën a dem mbaa du day xaru ji yéesu tontu ne yéen fii ngeen bawoo ci suuf waaye man ca kaw laa jóge àddina ngeen soqi ko waaye man bokkuma ci looloo tax ma ni ci seeni bàkkaar ngeen di dee bu ngeen gëmul ki ma nekk dingeen dee ci seeni bàkkaar ñu ne ko yaay kan mu ne leen li ma leen waxoon ca njaalbeen ga li ma mën a wax ci yéen ba àtte leen bare na waaye ki ma yónni ku wóor la te li ma wax rekk laay jottali àddina xamuñu woon ni yàlla baay bee tax muy wax yéesu nag ne leen bu ngeen yëkkatee doomu nit ki dingeen xam ni maay ki nekk dingeen xam ne it duma def dara man ci sama bopp li ma baay bi jàngal rekk laay wax te it ki ma yónnee ngi ànd ak man musuma bàyyi ma wéet ndaxte li ko neex rekk laay def bi ñuy dégg yeesu di wax loolu ñu bari daldi koy gëm yéesu na yawut ya ko gëmoon bu ngeen saxee ci li ma wax nekk ngeen samay taalibe ci lu wóor te it dingeen xam dëgg gi te dëgg gi dina leen goreel ñu tontu ko ne nun ci Ibrahima lañu soqi ko te mësunoo nekk jaamu kenn nan nga ñu mën a waxe ni dinañu leen goreel Yeesu ne leen ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax képp kuy bakkaar jaamu bàkkaar la te jaam du bokk ci kër gi ba faw waaye doom moom ci kër gi lay bokk ba faw kon nag bu leen doom ji defee gor dingeen doon ay gor tigi xam naa ni askanu Ibrahima ngeen waaye yéen a ngi may wut rey ndaxte li may jàngale xejul ci yéen li ma sama baay woon laay wax waaye yéen li leen seen baay di wax ngeen di def ñu tontu ko ne Ibrahima mooy suñu baay Yeesu ne leen bu ngeen dee waa kër Ibrahima dingeen jëfe ni moom léegi nag yéen a ngi may wut a rey man mi leen jottali dëgg gi ma jële ca yàlla Ibrahima deful lu ni mel li ngeen donne ci seen baay rekk ngeen di def ñu tontu ko ne nun de duñu doomi araam benn baay rekk lañu am mooy yàlla yeesu ne leen bu yàlla doon seen baay dingeen ma bëgg ndaxte ci moom laa jóge ñëw ci ndigalam ñëwaluma sama bopp waaye moo ma yónni lu tax déglu leen li ma leen wax li ko waral moo di mënu leen koo déglu seytaane mooy seen baay te bëgg-bëggam ngeen di bëgg di def boomkët la musa doon lu taxaw mukk ci dëgg ndaxte dëgg nekkul ci moom buy fen dëppoo na ak jikkoom ndaxte fenkat la te ci moom la fen soqi ko waaye man damay wax dëgg moo tax gëmu leen ma kant yéen moo mën a seede bàkkaar naa su ma waxee dëgg nag lu tax du ngeen ma gëm ku nekk doomu yàlla dina déglu ay waxam waaye nekkuleen doomu yàlla looloo tax du ngeen déglu yowute ne ko ndax danoo waxul dëgg bu nu nee nitu samari nga te danga am ay rab yéesu ne leen awma rab waaye sama baay lay teral te yéen dangeen may toroxal utuma màggal sama bopp keneen a ma koy wutal te mooy àtte ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax kuy sàmm sama wax doo dee mukk yawute ne ko léegi wóor nanu ne danga am ay rab ibraayima faatu na yeneen yépp faatu yow nga naan kuy sàmm sama wax doo ñam dee sunu baay ibraayima faatu na mbaadu dangaa defe ne yaa ko gën a màgg yenent itam faatu nañu waaw loo teg sa bopp yéesu ne leen su ma dee màggal sama bopp du am maanaa sama baaye may màggal moom mi ngeen naan mooy seen yàlla xamuleen ko nag man maa ko xam su ma ne woon xamuma ko ab fenkat lay doon ni yéen waaye xam naa ko te maa ngi sàmm waxam seen baay Ibrahima bég na bi mu yégee sama ngan bi mu ko gisee it bég na ci lool yëwut ya ne ko amaguloo juróom fukki at ba noppi naan gis nga Ibrahima yéesu ne leen ca dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax laata ñuy sàkk Ibrahima fekk na ma doon ki ñuy wax maay ki nekk noonu ñu for ay xeer bëgg ko sànni ngir rey ko waaye Yeesu nëbbu génn kër yàlla ga